Ismaël John, euh, je suis responsable adjoint du département de Thiès au niveau des jeunes, conseiller départemental à Thiès, euh, par ailleurs directeur de la réglementation touristique au ministère du tourisme et des transports aériens. dañu daje euh, ñun ndaw AFP yi vraiment pour waxtaane li nga xam ne mooy ñetti point ndax tey euh, assemblée générale la ñu daje ci assemblée générale boobu ñu waxtaane maanaam li nga xam ne mooy fàttali démb li nga xam ne mooy fait marquant yi ci région de Thiès ci biir parti AFP ñu waxtaane waat région bi mooy maanaam actualité bi ñu waxtaane aussi li nga xam ne mooy plan d'action ne moom la ñu war a dérouler maanaam activité yu ñu war a def pour ni ko yéene ni conformément li nga xam ne mooy le ministre Alioune Sarr et tous les responsables de a bokk ci parti yoo xam ne ñoo gën a am doole ci Sénégal ñoo gën am doole fii ci région de Thiès kon maanaam plan d'action boobu loolu lañ ci def mais li nga xam ne mooy rappel historique bi tey wax nañu parce que am na ndaw ñoo xam ne xëy na dañuy door a ñëw ci parti bi mais tey ak rappel bi ñu def xam nañ li fi nekkoon démb tey aussi gën nañu xam vraiment ban taxawaay la ñuy gën a am ci région bi deuxième point bi nga xam ne mooy vue du parti biñ ci waxtaanee tey à l'unanimité jeune yëpp dañu ne suñu région bi nga xam ne tey mën naa ne euh, orpheline la maanaam tey amatuñu coordonnateur ndax ki nga xam ne mooy suñu tante Hélène moo fi nekkoon coordonnatrice régionale de la l'AFP bi mu toogee Mbaye Dione def assemblée générale ñëw remplacer ko nekk suñu coordonnateur régional ci événement yi nga xam ne ñoo amoon euh, ci AFP ba mu am ñoo xam ne dàq nañ leen te AFP mu nekkoon fi ba moom aussi mu toog téye loxoom ñun tam ñu jëlaat Aliou Samba Ciss depuis 2015 ñu teg ko fi Aliou Samba Ciss moomu nag tey moo dëddu kon bu dëddoo ñun dañu jàpp ni tey amatuñu coordonnateur régional moo tax jeunes yi nag ñu ne pour koo xam ne dinañu téye lagum gum suñu région maanaam ñu xool ki nga xam ne mooy Bathie Ciss nga xam ne monument la ci jeunes yi parce dafa fekk démb fekk lu bëri am taxawaay bu mu am am légitimité boo xam ne tey war nañ ko mën a wóolu parce que loolu la ñu wonagum pour ñu jox ko mu téel ñu choix boobu nag dafa nekk choix boo xam ne ñun ndaw ñi ñoo ko def du coordination régionale AFP yëpp mais ñun suñu position loolu la te bu dee parti bi déggal nañu au niveau de la région ñun loolu la ñuy def pour ñu téelagum ñu ba ñu li nga xam ne mooy kuréelu AFP yi parce que defaguñu congrès defaguñu en tout cas euh, rencontre boo xam ne mën nañ ne diw la mais ñun suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg moo ñu teg ki nga xam ne mooy bàcc siis mu jiital ñu région bi téel ñu ko ndax wóolu nañ ay loxoom ci li mu woone ci partie bi wóolu nañ ko ci engagement ci loyauté te ba léegi ci intérêt AFP rek lay dox. formation parti bi dañu euh, def nañ benn plan d'action boo xam ne d'abord dañuy def hommage ci ki nga xam ne moo nekkoon suñu coordonnateur yàlla jëlee ko fi muy Aliou Samba Ciss bu quarante jours yi jeexee dañuy toog vraiment ñu rendre ko hommage jàng faay kaamil vraiment def lépp li nga xam ne daal pour honorer mémoire am su ko defee bu ñu paree ci loolu nag maintenant ñu dugg ci gox-goxaan yi maanaam yokk doole AFP mais aussi ñu def activité yoo xam ne mooy gën a dundalaat parti bi ci base yi. Euh, mën naa ne euh, comme ni ma ko waxee xam nga comme daf fi nekkoon vraiment ba téye loxoom euh, tey aussi koo xam ne gëj naa toog réunion régionale mën naa ne depuis ay plus de six ans tey mënuñu mënuñu ko mënuñu ne sax tey mu ngeeg ñun. parce que ñun li ñu constaté mooy Bathie Ciss au moins mu ngi fi depuis vraiment ay années 2000 yi mu constant mu nekk koo xam ne dafa jàmbaare mu ngi def lépp li nga xam ne mën na ko pour dundal AFP fii ci région de Thiès ak département de Thiès et au niveau national maanaam ñun ndaw ñi ñu ne ñun kat suñu bëgg-bëgg mooy kii téyel ñu suñu région bi ba ñuy dem ci soppi li nga xam ne mooy kuréel yi. bëgguñu koo xam ne tey di nga di nga ñëw vraiment pour am titre AFP pour que suba vraiment nga mën a ne waaw région Thiès yëpp jébbal naa ko diw parce que ñun kat dëgg yàlla koo xam ne ah, ngi fanaan ak yow réunion bi am nga ñëw xam nañ ci li ngay xëy ak ci li ngay gon mënuñu jël suñu région ñu jébbal ko koo xam ne xamuñ ci li ngay xëy xamuñ ci li ngay li ngay li ngay li ngay génn li ñuy wax nag li nga xam ne ay ñii dañuy def ni loolu moom ñu engagé wuñu sax li ñu bëgg kay mooy li nga xam ne mooy suñu parti ki ñu koy téel mu doon koo xam ne ku ñu doy la ku ñu wóolu la te buñ ko ko joxee bu ñu tëddee mën a nelaw ñu xam ne du ko waxaale du ko jox kenn suñu diggante ak Benno Bokk Yaakaar mooy nekk ay ay ay ay boo xam ne day dooleel Benno Bokk Yaakaar parce que encore une fois defe naa tey ñi nga xam ne ñooy waa AFP bokk nañ ci ñoo xam ne ñooy gën a dundal Benno Bokk Yaakaar dundal bi mooy lan boo demee commune Notto Diobass Benno Bokk Yaakaar réalité la foofu boo ñëwee Mbour seede yi nga xam ne def nañ ko bi euh, sunu maire euh, Aliou Samba Ciss dëddoo aussi ñëpp gis nañ ni vraiment taxawaay bi mu amoon ci biir Benno Bokk Yaakaar lu am am solo la kon mën naa ne tey AFP bokk na ci ñoo xam ne ñooy jëmmal Benno Bokk Yaakaar ci biir région de Thiès te loolu dañ ko bëgg a wéyale tax sunu frère bii un grand responsable dans l'AFP nekk porte-parole région bi ba léegi moom la ñu bëgg vraiment mu teel suñu région ba ñuy soppiwaat kuréel xam nga ñun moom boo bu dee dañuy wax politique jongante la hmm. koo xam ne xeex na ba nekk premier adjoint au maire dina ma jaaxal nga xam ne amul ñu mu àndal fi mu nekk ba mën a nekk adjoint au maire ndax xam nañ ni kat élection locale bokk na ci loo xam ne lu gën a gën a jafe la kon kooku tey mën nañ jàpp ni vraiment ku ku am légitimité la foofu hmm. parce que boo nekkee premier adjoint au maire rek defe naa yow moom côté légitimité kenn mënatu wax dara. Oui, aujourd'hui, comme vous le savez, euh, nous sommes, je dirais, en, en, deuil parce que nous avons perdu notre coordonnateur régional à la personne de M. Alou Sambassis, euh, maire de Dias. Donc aujourd'hui, on peut considérer que l'AFP dans la région de Thiès est orpheline parce que nous n'avons pas de coordonnateur régional. Et nous, les jeunes, en tout cas, après avoir abordé euh, les deux points, n'est-ce pas, de la, de la rencontre, notamment la vie du parti, les jeunes à l'unanimité ont proposé quand même Euh, de, de, de, choisir un coordonnateur régional, n'est-ce pas, par intérim, en la personne de Baptiste que nous avons désigné. Ça, c'est la coordination régionale des jeunes. Donc, euh, c'est ce n'est pas la coordination régionale des jeunes qui décide. Mais ça, c'est notre choix. Nous avons porté notre choix en la personne de Baptiste pour avoir été en tout cas là depuis les euh, années 2000, n'est-ce pas, fidèle au président Moustapha Agnès, mais fidèle aussi aux intérêts de la région de Thiès, qui n'a jamais tergiversé. Et aujourd'hui, avec le rappel historique qu'il nous a fait, vraiment, tous les jeunes, en tout cas, se sont abreuvés, je en tout cas, de sa grande expérience au niveau du département. Et aujourd'hui, quand même, tous les jeunes, à l'unanimité, ont porté leur choix en la, euh, sur sa personne, quand même, pour diriger de manière temporaire intérimaire jusqu'au prochain renouvellement des instances de l'AFP au niveau de la région de Thiès. Donc ce choix, nous allons aussi euh, en tout cas le proposer à la coordination régionale mixte qui va regrouper les adultes, les femmes et tout le monde parce que tout simplement Comme je l'ai dit, nous avons confiance en que nous voulons de l'AFP, il y a ce que l'on appelle la circulaire 29 euh, du, du, du, 14, euh, du 14 donc qui dit qu'aujourd'hui, euh, pour l'animation ou la continuité des activités au niveau des instances de base comme des organes décision, si le titulaire n'est pas là, faut que quand même le, celui qui le succède euh, puisse en tout cas prendre le relais. Et la situation de la région de Thiès est parce que nous avions comme coronatrice régionale euh, notre tante Hélène Tine, qui après avoir scellé ses activités, il y a son adjoint immédiat qui était euh, Mbaye John, qui assurait un peu la coordination régionale. Après Mbaye John, il y avait le maire Ayus Ambassis, et on sait qu'après les événements de 2014, en tout cas, qui a vu l'exclusion même de certains membres Euh, de l'AFP et le gel d'activité de certains. Mbaïdjon était en tout cas le responsable, mais après cela, c'est le, le, le, maire Aliou le défunt maire, qui était notre coordonnateur. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, la région est orpheline. Et nous, les jeunes, nous avons porté notre choix sur la personne de Baptiste pour en tout cas sa constance sa rigueur, mais aussi sa loyauté et sa fidélité et sa fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'AFP pas un fonds de commerce, confier l'AFP à des personnes qui vont le monnayer après, euh, vraiment pour des intérêts personnels ou bien politiciens. C'est pourquoi nous, au niveau des jeunes, nous avons pris les devants, parce que ça, c'est vraiment une Assemblée générale souveraine des jeunes, et vraiment, nous avons porté notre choix sur la personne de Batisis, qui est aujourd'hui, qui était responsable départemental de jeunes, qui a pris de l'âge certes, mais aujourd'hui, vraiment, sa sagesse nous rassure, sa loyauté, mais surtout aussi, sa constance dans le parti nous rassure. C'est pourquoi Aujourd'hui, à l'unanimité, nous avons porté notre choix sur lui. Même si euh, si il a gagné les, les dernières élections euh, locales, il est le premier adjoint au maire. Et pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui s'était assumé. Et je peux dire même qu'il y avait peut-être des, des, des, malgré tout, aujourd'hui, il est le premier, en tout cas, euh, adjoint au maire de Tchénaba. Ça, déjà, avec ce mandat électif, vraiment, euh, qui vient s'ajouter, à sa fidélité, à sa constance dans le parti AFP. Donc, vraiment, nous, en tant que jeunes, nous avons porté notre choix sur sa personne. Effectivement, si vous voyez tous ces jeunes aujourd'hui qui viennent des différentes communes de la région de Thiès, je ne dis pas seulement du département de, des différents différentes communes de la région de Thiès, ça encore une fois leur détermination. Parce qu'aujourd'hui, quand même, comme je l'ai dit, nous voulons honorer la mémoire de notre défunt coordonnateur régional, le maire Aliou Sambassis, qui ne ménageait aucun effort pour faire vivre l'AFP dans la région de Thiès et surtout dans le département de Mbour. Donc aujourd'hui, d'abord, comme première activité, nous allons faire un hommage, en tout cas à sa mémoire. Ce sera après le pratique conformément aux directives, n'est-ce pas, de, de, de, de, la direction du parti et conformément à la volonté de Moustapha Agnès de faire en tout cas de l'AFP l'une des formations politiques les plus en tout cas en vue dans, dans, dans, dans le Sénégal.